bu doom dund ak yaayam mu doon daw yaram lool ñu ngi lay ñaan nga seetaan ko ba mu jeex tey partagé vidéo yi te di ko sem tey abonné ci seen YouTube King Taalif kon nag ñu daal di ñëw indi leen histoire bi ndax daw na yaram lool. maa ngi tudd Aida bi may doon xale bu ndaw la sama papa daal di gaañu nga xamante ne mi ñu fi bàyyi man ak sama yaay ak sama beneen rakk boo xamante ne jigéen la sama yaay. ñaari jigéen rek la am ak sama papa nga xam ne ñun bi nga xamante ne nekk nañ xale rek demewuñ noonu booba la sunu papa gaañu waaye nag sunu papa dooleem bariwul woon noonu nga xam ne daanaka bim ñu fi bàyyee mu doon lu metti ci sama yaay ndax sunu wàll dund ak sunu wàll lekk ak sunu wàll naan doonoon na loo xamante ne metti woon na torop ci sunu côté booleeg maag sama rakk bi yëpp dañ doon jàng xam ne lépp sama yaay moo mujj di góor góorlu kem kàttanam lépp loo xam ne am na ko rek daat koy indi ci kër gi ngir ñu dundee ko nga xam ne lu ne rek def na ko ngir ñun ñu dund nga xam ne da daan jaay caaf léeg-léeg muy jaay ay laax yooyu nga xam ne ñun ci lañ daan dund waaye nag sama yaay moom dafa amoon feebar boo xamante ne léeg-léeg daf ko daan dal lu baree bari daanaka bu ko dalee du liggéey nga xam ne léeg-léeg dañuy wàcc ñëw ci kër gi waaye du nu añ benn yoon léegi léeg danañ dem école ba daal di jàngi waaye duñu am mburu mënu ndékkee wala ñu am xaalis boo xamante ne danañ ko mën a yor di ci lekk mu metti woon lool waaye sama yaay doonoon jàmbaar lool léeg-léeg teewut bu mosaan a xaw a tawatit teewut day jéema góor góorgóorlu loolu nag ñeewante woon naa sama yaay lool maag sama rakk bi saa yuñ mosaan a dem école ba léeg-léeg sunu morom yi suñu yoree seen mburu di ndékki dan ñuy ñaawal naa ni yéen de seen kër amuñu dara ndax loolu yàgg na ci école yi gone yi ci bari luñ la tanee rek dañ la koy daldi wax léeg-léeg sol giñ daan sol ndax bi biñ doon jànge amul di sol ay yére yu nuroo ku ci nekk danga daan sol say yére ñëw ñun dañ daan sol ay yére daal di ñëw buñ xoolee sunu moroom yi ñu sol loo xamante ni wóor nañ ne ñun soluñu ko léeg-léeg dañ ñuy ñaawal naan seen yére yi ngeen fi indi wala ñu naan xanaa lenn rek ngeen am mu doon lu ma metti lool nga xam ne jooy naa ko guddi jooy ko bëccëg booleeg di xalaat sama yaay coono yi muy daj ba tax na te taxut sun dara mat te léeg-léeg tawat ji nga xamante ne moom moo koy dal da koy tëral ay fan metti woon na lool ba jooy naa guddi jooy naa bëccëg ci loolu waaye dama mujj wax sama yaay ne ko damay daal di bàyyi jàng mii nga xamante ne moom laay def mu ne ma tey ngaa góorlu rek ci sa njàng mi ma ne ko gis naa li ngay daj metti na lool ci yow te sa tawat ji yërëm naa la ci dama bëgg nga ñaanal ma ma dem di liggéeyi lépp loo xamante ne am naa ko ma indi ci kër gi te dama laa bëgg a teral te sa tawat ji bëgg naa la koo fajal mu ne ko xale laa ma ne ko xale laa waaye am naa jomi teral ma sama rakk ji nañ ko bàyyi mu jàng rek te man ma dem liggéeyi sama yaay daal di ànd ak man ci loolu waaye man dama daal di def bis bu set ma wut samay mbuusi ndox wut galaas dem ca taliba di ko jaay lu ma ci am daat koy indi ci kër gi li ci des ma denc ko di def noonu def naa noonu ab diir boo xamante ne dajale naa loo xamante ne bariwul noonu ma daal tàmbali ñëw wut sama taabul di jaay ndékki ci buntu kër gi bu guddi jotee ma jaay samay reer waaye nag bi ma koy def nit ñaa ngi doon jënd may andi ci biir kër gi di ci góor góorgóorlu di jox sama yaay di ci defal sama rakk lépp soo xamee ne événement ñëw na muy tabaski wala yeneen lépp man maa daan mujj di góor góorgóorlu xar meeg yëpp maa ko daan jënd ne avant ma nga xamante ne may def lii daawuñu am sax xar moo xamante ne dañ ko tabaski wala dara te loolu lépp dañ ma ko daan ñaawale teewut bi may góor góorlu ci loolu góor ñu baari daan nañ tàmbali di ma dugg ak di ma bëgg ak yu bari waaye damaa xamoon li ma tax a jóg rek ma nekk ci ndax am na lu ma gënoon a ci loolu muy sama yaay mi bëgg naa koo teral ndax gis naa coono yi mi daj ci ñun ba tax na ma tax ci loolu di jaay ndékki di jaay reer waaye nag mujj na nit ñu bari xam ma ci di ñëw di jënd si waaye noonu laa def noonu laa def di dajale daanaka lu mat diiru ñaari at yoo xam ne kër gi rek li ci des ma denc ko ci laa nekkoon di ko def bi yàlla dogalee loolu ma daal di am xaalis bu xaw a takku ma daal di dem te fa nga xamante ne moo sës ca tali ba ndax suñ kër daanaka dafa jege woon marché bi dafa sës ci marché bi ma daal di fay ubbi palaas boo xamante ne damay jaay ndékki di jaay añ di jaay reer sama rakk bi saa yoo xamante ne jàngiwul day ñëw di ma jàppale ñu nekk ci loolu dama mujj dem ba liggéey bi ëppuma doole ndaxte client yi bari na lool ma daal wut yeneen ñaari xale yoo xamante ne ñoom ñoo may jàppale ci liggéey bi sama rakk bi soit yoo xamante ne jàngiwul rek lay ñëw jàppale ma ma nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu saa yoo xamante ne it wàcc naa dama daan jël dara jox ko sama yaay ne ko lii maa la ko may waxuma la nga def ko ci kër waxuma la dara nga jël ko def ko ci sa soxlay bopp ma nekk ci loolu ba mujj na yàlla dimbali ma mbir mi gën a dox lool ma mujj daanaka dafa am foo xamante ne moom la place bi ma yoroon lool ma mujj ko jël def ko benn place mu yaatu lool nga xam ne dafa mujj doon restaurant bu mag boo xamante ne damay jaay ndékki di jaay añ di jaay réer pare daat koy defaraat ba nga xamante ne dafa gën a jekk ma koy def di ko def ba mu yàgg waaye mujj gi dama nekke foofu dama daan tabax benn boo xamante ne boo xam ne sama bos boppu laa ko doon def mujj na mu daal di àgg nag doon restaurant bu mag a mag boo xam ne bi ma fa nekkee tuuti dama daal di mujj yokkaat ci kaw nga xam ne ci kawak ak suuf yépp dañ fay liggéey sama rakk jooju man naa ko mujjoon doon fayal jàngam waaye dem na ba nga xamante ne am na li mu bëgg waaye moom day faj man ma nekk ci restaurant bi nga xam ne mujj naa jël ñu baree bari ñu fay liggéey waaye yàlla mi nga xamante ni dara tewu ko te mën na lu ne ña nga xamante ne dañ ma daan reetaan te bu yàgg ngir sunu ñàkk ak sunu lépp dañoo mujj am na ci ñoo xamante ne tey jii nii liggéey jàng nañ ba am seeni diplôme waaye amuñ liggéey dama leen jël ñu nekk ci restaurant bi di ma servir ñi nga xamante ne ñoo fay ñëw di jënd feebar bi nga xamante ne sama yaay moom la feebaroon mu metti lool ci moom yàlla xamat mi nga xamante ne dara tawu ko dama ko daal di jëlal bi nga xam ne dama ko yóbbu bitim réew mu daal di fay fajoo ji ba nga xamante ne tey jii tane na alhamdulilah wér na mi ngi ci jàmmam tabaxaat naa kër gi wutal ko oto boo xamante ne ay soxlaam la ciy dox nga xam ne dama ko wutal sëfoor may wax ne ñaanu wayjur rek am solo bépp nit boo xamante ne jug na tàkku ngir fas yéene teral yaayam am jom fas yéene wu ko teralee ci ni nga xamante ne moom la jigéen ñi xawal léegi dem di jaay seen bopp wala ñu nekk ci loo xamante ne lu bon la fas yéene am jomi rek lépp loo xam ne am nga ko andil ko booleeg di dajale day bus boo amee sa ñaanu gi way jur la nga bëgg di ko am ma leen di wax ngeen roy ci man mii ndax sama njëlbeen metti woon na lool ku ne daan ma reetaan lu ne ñu ma ko daan wax waaye tey ji ma daan reetaan damaa mujj di leen dimbali te loolu lépp li ma ko may mooy ñaanu wayjur ak bëgg teral samay wayjur moo tax tey yàlla fayee ma lii kon di wax képp koo xamante ne bëgg naa teral wayjuram yàlla na ko ko yàlla may te na am jomi góor bu mu jéem a njuuj njaaj bum mu dugg ci loo xamante ne war cee dugg wala muy jigéen joo xamante ne day jéem a mbaraan góor ñi di leen nax di lekk seen xaalis ngir di ko yët yaayam lu ne mu dugg ca lool yi du tax mu am la mu bëgg la koy tax mu am lu mu bëgg mooy am jomi dem nangoo liggéey lu mu am lu mu tuut mu néew mu indil ko ci yaayam wala mu indi ko ci biir kër gi booleeg di dajal su ko defee sunu borom dina ko gën a yëkkati mu gën a jëm ca kanam